wax loolu nag en tant que doomu Louga ndax ñun amuñu xàjj amuñu seen képp ku dëkk Louga loolu yëkkati tamit avancé Louga daan ci topp jàppale Louga TV nekk télévision boo xam ne nag bokk ci télévision yi fi njëkk ndax Louga TV ba muy am benn télé amagul Louga tey nag télé yi bari na ñoom ñu dencoon télé bi doon ci liggéey ndànk-ndànk ba tey ñu génne ko la doon lijjanti lépp sotti kon waa Louga ñoo leen war a fekk si jàppale leen seen technicité mat na ko seen xara xadar xarañte mat na ko seen fulla mat na ko seen équilibré mat na ko ndax ci digg bi leen taxaw fas yéene ànd ak waa Louga yépp tey ñuy woote di wax ni njang bamboj sanc ba sud sanc ba noor ak Thierry Montagne jox na kër Serigne Louga seen sag la ngeen jàppale Louga TV man ma jooja caam di doomu Louga amoon yéene dugg ci télévision bi waxtaan ak askan wi tey Covid 19 bi dugg na biir Louga jaaxal ñu yàlla dimbali ba suñu médecin yi ànd ak le gouverneur le préfet ñi ngi liggéey liggéey bu am solo désencombrement bi ñu def metti na trop waaye dañ ko def pour bañ feebar bi avancé loolu ñu leen ci gërëm di leen ci sant di leen wax rek ni. Yen ñëpp war ngeena a dégg ni dañu exiger kuy génnati na tak maskam dañ doon wax na ndaxasu nan bàyyi nuyoo yi defe naa loolu jeex na kenn nuyootul joxe loxo laabi sonte di jeexna waye nak kuy gënëti di dem marché wala ngay gën di dem fu ay nit nek wala nga tok fu mbolo nek wala sax nga gën tok sa buntu kër takkal sa masque ndax lolu dana tax jangor yi baña avancer ñuy ñaan ci yàlla ci barke mag ñu baax ñi nga xam ne suñu Louga gii nga xam ni ku baax ci Sénégal rek te nga fi sa tànk wut si fi ndax suuf si dafa barkeel barke mag ñooñu yàlla nañu yàlla dimbali ba feebar bi dellu gannaaw lool ba dootuñu ko dégg ci Louga dootuñu ko dégg ci senegal te incha allahu taala am nañ yaakaar boobu yàlla na yàlla dimbali nu ba ñi sumb télévision Louga TV bi yàlla yëkkati leen ca kaw bu ku di xool day teen di leen xool mu ànd ak sag ànd ak njariñ ànd ak koppar yu bare baree baree baree bare yal ñu leen askan wi yëpp day wut si ndax gis njariñ ci yéen ne ko ay kàddu yoo xamante ne bi man ma jóge caam maa ñëw di ko wax ànd ak yéen nag ci liggéey bi fu ngeen ma woo dinaa leen wuyu ndax xam naa ni Louga leen ñor te ku Louga ñor man ñor nga ma moo tax may joxe sama engagement di wax ni lu ma xam ci lu baax lu ma xalaat ci lu baax dinaa ko joxe ci xam-xam ci xalaat ci jëf ma ñëwoon doon waxtaan ak yéen mbokk yi ñuy seetaan di leen wax rek ku ñuy déglu di ñu seetaan ñu ngi lay baalu àq di la di ñaan yàlla weeru koor wi ñu jub si ñu woor ko ci bismillahi rahmaani rahim jeexal ko ci alhamdulillahi rabbil alamin yàlla jëggal ñu suñu bakkaar nangul ñu lépp luñ ci xalaat a def weer yàlla nekk weer woo xamante ne bi yàlla da ci jaar rek la lépp doomu aadama yi mën na ko sañ na ko te mooy borom jaam yi ñuy nuyu képp ku ñuy seetaan di la gërëm di la sant di la wax ni Louga mooy suñu fierté kon fierté Louga mooy Louga TV Louga TV suñ ñëwee nekk télévision boo xam ne dafa ànd ak site internet boo xamante ni la xew ci àdduna ñu ngi koy bind mu tudd Louga Actu ñu seen chaîne ci biir télé ci biir télévision mam am boo xam ne YouTube la yaatu lool àdduna di ko seetaan. ñun bu ñu dëkkee Louga di ndamoo Louga war na noon ndamoo lool may dellu di ñaanaat askan wi di leen wax ne Louga TV chaîne télévision la boo xamante ni bi ay dé samp teg ko fi mu yàgg lool waaye mu daawuñu ko doxal comme ni koy doxale fan yii nag ñu jugal ñu jugal ko doxal ko muy émettre ci réseau câble bii ñuy wax réseau Louga réseau câble boobu di ko dawal waaye tëréwul yaa ngi koy seetaan ci internet bi kon dafa war a leer seen bopp ni télévision bi télévision Louga la télévision askan wi la kon doomu Louga jàppale leen télévision bi ngeen ngeen di ko seetaan jàppale leen télévision bi ngeen fay dem di fa yóbbu seen i programme disponibilité am na fa lu télévision war am am na ko muy caméra yu baax di ay xale yoo xam te noo jàng ba génn am ay journaliste ñu jàngal xale yi former leen ñu man lépp lu nit di nekk ci télé di man kon télévision bi léppam pare na ñu wax chapeau à Mbacke Mbodj di ñaanal yàlla yàlla foog mu fay sa xol ndax xale yi nga formé ñii ñu ci télévision yu bari bari na télévision ci Sénégal xale yi nga formé ñoo ci nekk mën naa ci li wax élage ma tey jii moo nekkal DTV ci Mbour mën naa cee lim Nabi Vision tey kenn dàq ko monté ci Sénégal mën naa cee lim Nabi Vision mooy nabi bi nekk ci ci labo bi mën naa cee lim Cheikh Sëriñ nga xamante ne bi Dakar TV international moo nekk seen technicien et tant d'autres ñoo xamante ne bi formé nga mën naa cee lim nag le plus professionnel jàngal nit ba mu dem bi jàngale muy Ablaye Lo nga xam ne tey ci audiovisuel ci ci Sénégal bokk na ci ñi ko fi dàq ñi ko gën a maîtriser kooku Mbàkke mbit bu ko jàngalee mu dem bay jàngale kooku fierté Louga la war a doon te Louga war na noo xam loolu Louga war na noo xam ne am nan doom joo xam ne daa demoon bitim réew jàngi ba mokkal li war a xam lépp ci audiovisuel au lieu mu toog bitim réew mu ñëw ni dama koy indi sama dëkk waa Mbàkke loolu nga def feeñ na ndax bi nga ñëwee Louga dangaa formé ay jeunes jeunes yooyu kenn ku nekk samp sa structure bopp kon yow loolu du réer moo tax télé bi faaw day dem day dem de kenn mënul tee mu dem nga formé nag Ablaye Lo mu gore lool ànd ak yow seen ànd bi ngeen ànd yàlla na bu ci seytaane dugg yàlla na jëm kanam ànd bi yàlla na ànd boo xamante ne bii dëgg ne ànd ba faw ndax ñaar ñu gore rek ñoo mën a ànd ma ñëwoon na doon waxtaan rek mu nekk loo xam ne appel bi daf maa bett préparé wu ma ko beneen yoon daan ko préparé ñuy jéggulu di nuyoo di sant di wax rek asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu Louga TV ca kanam ca kaw ci lu baax ne dem ci Actu www.lougaactu.com nekkee Luga, Louga yungu yëngu ci information actualité politique santé sport Luga Actu Bayoul dara Yenibug information bi wér te Luga Actu l'uga Actu